الله الرحمن الرحيم الحمد لله alayhi wa sallam di ci beral nag ci jotaay yooyu wala ci mbootaay yooyu wa Gandon di ci jotaay di ci ci beral ñëpp waa Ngay Kay ak waa Màkk Tubé ak mbooleem waal waal yi dëkk yi wër Pal yëpp junga mbaxaas mbay mbay ñëpp ñoom ñëpp yaan yàlla fay leen ñëw ndaxte dañuy sonn bis bi lool ñoom leen wàcc ñoom ñëpp seen wàcc waaye dañaan yàlla def leen jàmm barke nabi sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee xëy autorité yi fii ñëw ñu bàyyi leen nuyoo bi ak xam si moom mooy waa xale amadou ñi xam organisation bi mu mel na ki ni daaw suñu waxtaan ñoo ngi ko defoon ci li nga xamee ni si dafa nekkoon ndax gàmmu bidaa la wala lu bidaa ndax jullit ñi war nañ célébrer gàmm wala wala ñu ko célébrer ndax jullit ñi li ñuy def dagan na wala daganul ñu defoon ci waxtaan daaw ren nag fi ñu leen génn fi ñu leen andil mooy dafa am benn Occident wala benn européen boo xam dafa bind benn téere téere bu yéeme yéeme mi ngi ko tudde al islam al mut'ab loolu moom mooy lan islam bi nga xamee ni si fi ñu toll nii daanaka àdduna bi islam boobu ñuy wax islam moom kese moo xam ne adduna bi jàmm tudde ko islam bu sonlee sonlee ci biir loolu nag mu ni al islamul mut'ab dafa nekk diine yoo xamee ni si ñoom européens ak ñi nga xam si ñoom ñu seen allié war nañu ànd taxaw ci taxawaay boo xamee ne si nee na loolu moom moo tax mu bind téere boobu pour jagleel ko waa bi yëpp naka la ñuy def ba écraser islam ak jullit mu wax ci lu yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo waaye tënk na ci ay bunt yoo xamee ne si dañ ci tànn lu mat juróom-ñaar wala juróom-ñett yoo xam si moom la leen andil pour waxtaanee ak yéen ngir ñu mën a bàyyi xel ñun suñu nekkin comme jullit ngir ñu mën a bàyyi xel suñu njaboot comme jullit ngir ñu mën a bàyyi njaboot gi comme ñu nekk ñoo xam si dañu war a nekk royukaay dara la mën a ci bind téere bi mi ngi tudd Don Jacob Don boobu téere bi bi mu ko bindee dafa ni euh, téere bi yàlla na képp koo xamee ni si li ñu tuddee jullit wala li ñu koy tuddee euh, islam ñun ñëpp dañu war a pour xeex loolu naka lay koy xeexe nag ci la génne ay occasion yoo xam ne si wala ay points yoo xam ne si nee na loolu la bëgg ñoom Occident ñoom ñëpp ñu ànd taxaw ci loolu mu ne liggéey ci li ñu war a def ngir yamale islam ak jullit ñi fu garaaw garaaw la tàmbalee mu ni inna awlatal muslimina yuxaafiduuna ala aqaani l islam وأكثر منهم يحفظون القرآن من اللي قرية من من دوم تلي دوم توتي توتي توتي توتي توتي دنا مقال دنيو تلي بانك إسلامي خمس مو مو يجور أشهد أن لا إله إلا الله محمد أشهد أن محمد رسول الله إقام الصلاة إداء الزكاة صوم رمضان حج البيت نال اللي قرية من مو تلي دوم توتي توتي خمس مو لون ولا لون ولا لون كوكب المدينة mu ne nag naka la ñuy def ba xale yi sax doon ñu mën a nekk ñoo xam si dañuy mën a wax wala ñuy mën a seede li ñuy tudd ak kanul islam beneen bi mu ni bi ci topp moom mooy yajibu an nu dammira an nu dammira an nisaa fii fii bilaadil muslimin kay yashal ataxakkum ala aqulihim aw li aqulihim mu ne li ñuy tudde jigéen rawatina jigéen ñu ndaw yi war nañu fexe ba ñu ñu saytara leen mooy nga jël nit ki ba dootul am taxakkum maanaam dootul moom boppam ci li muy bëgg ak li muy gëm ñu fexe ba def ci xelul jigéen ñi surtout jigéen ñu ndaw ñi li ñuy woowee yàlla ak li ñuy woowee yonent li ñuy woowee diinu islam mooy l'état de l'islam gis nga fi mu génn jigéen ak xale mu mel ni que ni ñetteel bi ci topp te bu ci nekk yàjj bu lay wax nga xam dafa nekk une obligation boo xam ne si ñi war a taxaw pour xeex islam ak jullit ñi dañu war a boole seen doole boole seen xam-xam boole seen pexe ngir xeex jullit ñi ak islam mu ne ñetteel moom mooy yajibu an nabda fi l hujum alal mashaayix déglul bu baax wal masajid ah wa xutibul jumaa wa xutubul jumaa mu ne tamit bi ci topp moom mooy ñetteel bi war nañu ñun ñëpp ñu génnee ay genre wax yu bon maanaam lu ñu tuddee la guerre froide médiatique fexe ba média bi ak télévision yi surtout rajo yi whatsapp yi yooyu yëpp ñuy fexe ba kenn ci ñoom du am benn émission boo xam si dafa nekk émission bu positif ci wàllu islam ñu gëm loo xale yi ni leen ñi nga xam ne si ñoom la ñuy tuddee sëriñ ñi nga xam si ñoom la ñuy tuddee jàkk ñi nga xam si moom la ñuy tuddee ay jumaa ñoom ñëpp dañu nekk loo xam si dañuy tardel nit di tardel humanisme لا إله إلا الله fa tabarakallah biñu amé xalaat bi jëlé ko ci serigne basir té garal ko ndax biñu ko xalaaté rek kenn ci njabot la ko wax rek munima insha allah lolu de dina ci japp japp bu wër ko xamni insha allah xam ngeen tam ci biir lolu yitam euh ñi nga xamni dëkk bi dëkku leer na dëkku diiné la way rawati na ci bis yi ñu dëkk na kenn ku nekk def yitteem ci ni dafa war a taxaw ñëpp waaye moom kenn war koo taxaw waaye su fekkente ni da ngay dox di gestu sax. moo tax mu yegg ci loolu mu yegg waaye ñun. jëmale ko ci monsieur le président de la république kooku nag yóbbante commune bi la xëy na li ñuy yóbbante sax umpalewul président ndax umpalewul gouverneur te gouverneur moo ko fi toogal te gouverneur lu mu jot ñaare président suis ci je suis commune bi ci le président Macky territorialisation des politiques publiques Moi, je li nga xamni mom la bëgg ci réew mi di ko doxale ci commune yi suñu ñun bu projet programme la boo xam ni li ko tax a ñaare moy li ñu wax changement climatique moy soppeku yi nga xamni moy soppeku ci ñi nga xamni mom la aduna bi doxé mom la ngelaw li doxé mom la ndox mi doxé ba ngeen di dégg mbënd yi am ak yaqku yaqku yi am dar ak yu démé non pal dafa bok ci ñi nga xamni dañu ko ci bolé té lolu li ko andi moy li ñu bok département ndar

ak ñu ñu jàppale jàppale bu directeur régional a gi dugal na ci ba mu ba mu ba ñetti projet bi dafa weesu projet ñun fa monsieur le ministre Mansour Faye moo tax buñ ko dalalee tey yaakaar nañ dalal ko yeneeni yoon yeneeni yoon yoo xam ne duñ ko dalal en tant que ministre duñ ko dalal en tant que responsable politique mais dañ koy dalal en tant que maire ndax maire la bu bokk wala boog nar a bokk ci intercommunalité bi te intercommunalité bi bu ñu koy wax partenaire a tax ñuy wax partenariat te bu ñu nee partenariat

son excellence le président Macky Sall invitons en effet la délégation officielle jiite en tête, monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis madame le préfet du département de Saint-Louis am bu mat sëkk ak fan yu gudd amen di yëkkati ya kaddu nuyo aussi tek mbolam ñu fi tewu ñëpp wax ci nak du gudd parce que bés bi bésu sallallahu alayhi wasallam la mbiram lañ ci wara wax mbiram lañ ci wara a waxtaane waaye tax ma jaare ko fofu parce que moom dafa nekk koo xam suwee ñu yóor suba ngoon guddeeg bëccëg dañuy jéem a def xaw a jege mel ni moom amana sax xëy na mel ni moom dana xaw a jafe waaye ñuy jéem Allah loolu mooy yu mbiru jullit Sénégal nag dafa nekk dëkk boo xam ni maanaam boo doon seet ci dëkk yi gën a ndaw ci wàllum tolluwaay ci la yem waaye dëkk bu gën a màgg ci wàllum daraja fa la toll loolu nag bu amee c'est parce que suñu borom dafa am loo xam ni daf ko may Sénégal daf ko may ay doom yi nga xam ni dañu fa amoon taxawaay bu ma sëkk taxawaay bu rëy muy kilifa diine yi nga xam ne ñoo fi nekkoon te ci kilifa diine yooyu maam allah ji rawan ngam ci la bokkoon ñuy liggéey liggéey suñu borom liggéey Sénégal ngeen di mottali di yeggale nii ñu ngi ñaan suñu borom liggéey boobu yan naka suñu borom mottali amiin ci loolu maanaam dafa am loo xam ni dañ koy faral di waxtaanee ci jataay mel nii dafa jafe na dafa jafe moo tax ci jataay yi dañuy war di profité di jéem a yeewaale askan bi dafa nekk lu am solo dëkk bu demee ba nga xam ni peut askan bi dem na ba nga xamni ni bu jéemee jël lo xam du deug jëm ko peinture jëm ko jubbante bu mu nek waro nek deug bu baba kat ñu war a dañ dañu war lool dafa nek lu am solo te jotta yi melni yakana yaakaar naa ne waxtaan yu deme non ye askan bi kat askan ci yoon jubbanti leen pour que dëkk bi nga xamni ni amuñu benen dëkk bu dul senegal mu jëm kanam ñepp xam nañu senegal ah am na ay jiitu réew fi nekkoon président Senghor nekkoon na fi yàlla may ko fi boobu lu baax président Abdou Diouf président Abdoulaye Wade ci jamono gii nekk président Macky Sall moo fi nekk Sénégal nag wërsëg yu bëri ñu ngi fi potentiel yu bëri am na fi pétrole am na fi gaz am nañ fi yàgg nañ koy séentu te mosuñu ko gis waaye suñu borom ci diirum président Macky Sall la ko feeñal. loolu nag ah tegtal yu leer la te boo amee dëkk boo xam ni ci ndeme loolu nga jëm te ñëpp xam nañu yeneen dëkk yi am problème yu mel nii wala am potentialité yu mel nii bu ñu sàgganul boole seen xool yi mu nekk benn koo sàgganee bu ëllëgee dañu am problème te loolu dara moytu la lu jar a taxaw la lu jar a defar la loolu nag ñu koy def mooy kilifa diine ñoo ci jàpp waxtaan ak askan bi teg leen ci yoonu yàlla. tant que ñu ngi nekk ci yoonu yàlla kanam rek lañ jëm waaye su génnee ci yoonu yàlla di dem lu dul dëgg lu jul ci noonu boo sàgganee daañu am problème loolu dafa nekk waxtaan yoo xam ni ah sëriñ bi xalif bi yaakaar naa ni dafa nekk lu am solo mbirum diine du ma ñëw solo rek toog wax déedéet du mbirum jëfandu mbirum jëf la te jëf ci jikko la jikko nag dañ koy jubbanti buñ ko jubbantee mu jub parce que suñu borom moo ñu teg loolu te mën nañoo def teg yoon boo xam ni bu soobee suñu borom daal jubantu waxtaan yooyu nag dafa nekk waxtaan yoo xam ni tous les jours suba ngoon bu guddee bëccëg firikat yi ñu ngi ci waaye jataay yu mel nii bu amee da nga ci war a boole te gëm naa daañ ko ci boole pour nga xol yi mën a jubbantiku donc loolu la amoon loo xam ne dinaa bëggoon naa ko ci wax état nag day jéem président comité d' organisation wax na. lu askan bi soxla ci état monsieur le maire wax na ñoo bokk diwaanu Ndar bokk département de Saint-Louis te bu ñee département de Saint-Louis bu ñee gaz dafa fay lu bëri fii ci département de Saint-Louis donc loolu nga xam ne maanaam njëriñ la war nekk ci dëkk yaakaar naa ne bu ñu àndee nekk benn dans communalité bu soobee suñu borom lépp lu ñu tàll loxo suñu borom dana ko mën a jaarale ci président Macky Sall mu egsi ci askan bi liggéeyaluñ suñu bopp. ñuy ñëw ëllëg la ñuy liggéey parce que yaakaar naa ne njëriñ luy ñëw pour ñu ñëw ëllëg la te loolu liggéey dong moo ko mën a indi liggéey moo koy def ñu doon liggéey nag mooy ñi nga xam ne mooy maam allah jël xam liggéey liggéey boo xam ne tey jii ñu ngi koy magal chaque année lii day gën a màgg at bu ñëw day yokk danañ ñaan gën a yokk teguñu ko fenn ci liggéey ak ci dëgg dëgg rek mooy wér dëgg mooy am te dëgg mooy mujj di gërëm ñëpp dëgg sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah وخم نيجي ان دك بي مين نكو نخ مم أك مم أك باي الحاج إبراهيم مين خاني موي كات مم الحاج روحان يو بكون دي جانغ تي بيت ليميت تا الحاج مالك جوب مينو في أيون سيرسي باي الحاج إبراهيم مين سرين منطقة ابني مولاي الشيخ الحاج محمد البشير مولاي الشيخ أحمد بن رضي الله تعالى عنه ñu président de la république alxaaji Macky Sall te di ko ñaanal yal na wér yal na tal yal na ko yàlla dolli sago yal na ko yàlla dolli ndimbal yal na yàlla dolli ko xel yal na yàlla def ادعو الله تعالى ان يؤلف عنده القلوب وألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ندمم في mu nekk du pétrole du gaz waaye ndamam fi mu nekk mooy ba fexe ba Sénégal yépp nekk benn tàmbali na ko yal na àggale jàmm yal na yàlla delloo si xel yi ba ñuy yëg ni ñun ñëpp dañuy dem ñëpp monsieur le ministre wax na fi léegi Senghor président Senghor président Abdou Diouf président Abdoulaye Wade président Macky Sall moo fi nekk day dem keneen day ñëw dem ñoo koy ñaanal boon bala muy dem fenn yàlla xam kañ la waaye yàlla ko yàlla may mu takk Sénégal yépp comme ni ko aaya bi tuddee fexe ba doomi Sénégal yépp yépp nekk benn yàlla ko yàlla may loolu te xam naa ne lu mu bëgg la di ko gërëm ci taxawaay yépp nag yi nga xam ni lim nañ ko ndax lu ñu wax ci gouverneur président la lu ñu wax ci ministre Mansour Faye président la lu ñu wax ci direct directeur yi fi nekk yépp président la jëmmi président la ñu toogal kon bu ko defee ngërëm yooyu yëpp ñoo koy delloo ci moom di nuyu alxaaji Moustapha Niass mi nga xam ni mooy président wu assemblée nationale ko ñaanal wér muy mag mu yiw mu baax moom itam di nuyu monsieur le gouverneur, la Abou Mohamed Boun Abou Bakr Djan, John mi nga que si ba mu le premier ministre ba mu le secrétaire général bu président de la République muy sous-préfet bu raw di nuyu tey gërëm El Hadji Abou Bakrin euh, Sow mi nga xam ni mooy directeur u SAED di gërëm El mustafa Moustapha di gërëm El Hadji Adja Khoudia Mbay Adja Mbay foog ko taxawees fi Adja Khouba Mbay Adja Khoudia Mbay maam El Hadji Rawane amul ku ko ëpp maanaam maam El Hadji amul ku ëpp ci état yàlla dogal na jox nañ ko teraanga ju rëy mu liggéey ku liggéey bu rëy moo koy ñaanal yàlla nañ ko déggaat lu rëy lu waa Gànjool ak waa Gàndong ak waa Tubé yëpp xaj ak Sénégal gépp di ku tedd ku gëm maamam El Hadj Ron radiyallahu taala دي نيو باخ الحاجي الحاجي إسا جاو ميرو دك بي موم بو ليغي سي soxnaam ko a ñëw soog a ñëw kon ñoom itam war nañu war liggéey ci keppaaru moom El Hadj lu bëree bëri. di nuyu Ibrahima Diaw nga xam ne tuddoon nañ ko léegi dénk ngeen ko saytu yàlla bu ci am ndox yàlla ci am ndam ni ngeen ci moom yàlla na ngeen ci gis doom la jarbaat la. te kenn ku nekk xam na ni mu jeex ci maam alxaj Rawaan radiyallaahu taala anhu ak njabootam waaye noonu la jeexee ci kilifay diine yépp Ibrahima moom diine la bugg dina yu alxaaji Mourguey ajorout moom itam ku gis kër gi ni mu tëdde rek ngayeen ñangeen ngayeen gee njaañeen ni ñu wëri ci kër gi baayam Babacar Gaye mi nga xamni mo jur moy mammi mi Babacar Gaye mi ñu tuddu ñokay koy gërëm dugalaale ko ci biir bu abdul Aziz gay bu Babacar gay Babacar gay mom bokkon na ci ñi jëk am auto ci Sénégal mu ñëw di wax mam Alpha amna auto di wax ni mu ne ko ndax ñeme nga war auto te allah jara won amuko mu jël auto ba ak caabi yëpp jox ko ni ko jox ko kon allah jara won setal kilif teef gogu yàlla fi dem ci mam allah jara won ni man duma yirif auto alxaaji Malick amul oto moom itam mu jël oto ba mu am Cheikh alxaaji Malick ni man kat du ma fiilif oto te jàkka yàlla ji nekk fi mu jël oto boobu def ko ci fondation jàkka yi Tiwaawan jee nga xamante ni ñaar ñooñu foofu la tàbbi kon noo ngi ñaan seen diggante di gën dëgër di gën sell di gën a yiw ndax ñun bokk nañ ci suñu interlocuteur ñoom ñu leen di wax ngeen leen di wax di gërëmaale aussi sunu doom ji nga xam ne moo topp ci euh, Mouhamed ibnu Abdullahi John muy alxaaji Amadou Ngom di doom di taalibe moom doom gi fee la ko teg waaye taalibe gi rek lay doxal di gërëm nag mbooleem way juróom yi ak mbooleem fa mu jóge di màkk tubeeg ñëpp euh, alaaji Sini Ndaw mi nga xam ne mooy euh, directeur u ONFOR moom itam sëriñ baa ngi gërëm ndax ay taxaw الحاجي الحاجي ماميتو نجاي ديكو غرم ماميتان الحاجي الكولونيل أه، أه، سيسي ميغا خاني مويور ديبارتمان بي دي غرميت سونو مبوك مو تيد مي الحاج مبيسار ميغا خاني ميغي نيو ليغي ا أه، اك مو نيكيت ني لاي ديف نداخ مو با بالا مو مو بال نداخ با بالا نيوي غروم تي بالا دو كيت نك kóllëre yi bare lool monsieur le ministre li nga wax sànq ci jubbanti xelu population bi ci occasion yu mel nii bii moo ci raw muy gàmmu gàmmu dafa nekk loo xam ni buñ ko jàngatee jàngat ba ca war ki koy jàngat ak ñi koy dékk ñu koy jàngat bu ñu paree rek dañu sotti ko waaye ba lu ñuy àgg foofu daañu wax ni maam Alaaji Rawaan di ab dayoom mosul tuuti ci kenn xam na ñu ni tuutiwul ci Macky Sall xam na ñu ni tuutiwul ci président Macky Sall tuutiwul ci président Abdoulaye Wade ndax firndeel nañ ko tuutiwul aussi ci président ab du bu it ci président Senghor waaye xaw naa man wax ni ni mu toll woon ci bëtu colonialiste yi mënu ko toll ci ñoom àgguñu fa sax parce que ñoom dañuy yëgoon ni kilifa dëgg dëgg mi ngi nii ba ñu demee ba jaaxle guerre mondiale deuxième guerre mondiale le vingt cinq bu ma juumulee dañu ñëpp ca bàyyi ñaan fala budda min shakwa nañ ko àggale waaye féeg ñetti fan féeg ñetti ay bis ma mukk insha allahu ñetti weer guerre bi dana jeex te France du ci jële dana ci jële ndam alxaaji Maajoor Jaw ci ay gëstoom dem na ba wax bis bu nekk la ci xew mu muy daata am ñetti weer Hitler ci boppam taal na boppam daal di xaru kooku gis ngeen colonialiste liñ ko joxoon ak lu dul jeex lu mu mos a ay tur di ko seeg di ko nemmi ربي ربي وأمتنا على الدين loolu mooy yi jëlay ba doon koy wax ak yi ñam ñëpp ci ci wax leen di beral gërëm ak cant ci ki nga xam ne mooy président Macky Sall ci xéewal yi waroon di ak i jàppandal ak i moyen ci ak i njaboot ñoo ko ko gërëmal di ko sant di ko jaaral yàlla waaye lu seet seet ci yooyu yëpp may gi nga xam ne may na ma ko man agri Lamine Ngom ci sunu doom ji nga xam ne moo na Ibrahima Diaw tiit bu mu nekkoon mu teg ko ba Mansour Faye ñu jàppal ci jox ko jox Ibrahima Diaw cër bi ñu ko jox ñu di ko sant tey ñaan nag ñu dolli ko Да.